accord euh, asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant euh, di remercier personnel médiatique bi la presse bi nga xam ne ñoo ngi nuyu si tey jii suñu point de presse fii si suñu siège coalition Diao 2024 le Sénégal en mouvement di nuyu camarade jeunes yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci salle bi tey ñëw teewee point de presse bi di wax ne li tax ñu woote tey point de presse dafa fekk ne dañoo nekk en politique te boo nekkee en politique bu situation politique bu bees amee war nga mën a woote wax ak askan bi war nga mën a woote wax ak coalition Diao 2024 woo militants yi woo camarades yi woo sympathisants yi wax ak tamit li nga xamante ne mooy opinion sénégalaise di wax ne tey ñu ngi en politique te kuy wax politique wax ne politique train buy daw la nag saa su nekk dina am ñuy yéeg am ñuy wàcc la bu mu yegg am ñuy yéeg am ñuy wàcc di wax ne bu ñu wax ne politique politique lépp a ngi ci biir politique ku jub ngi ci biir ku baax ngi ci biir ku bon ngi ci biir politique tey jii bu ñu koy wax di fàttali histoire politique sénégalaise dañuy rappeler ne histoire politique sénégalaise l'histoire est de trahison yoo xam ne que tey jii boo xoolee ascension wu Ablaye Wade pendant 26 ans muy mën a ay combat politique bëri na ñu ko waroon ci yoon bi te bi mu yeggee au pouvoir ñooñu ñoo ñëwaat moom nguur gi àndandoo moom géré di rappeler ne le président Macky Sall bi mu nekkee ci yoonam nekk doomu Fatick xam ne dañ ko waroon dañ koo jàppale ci combat bi wala ñu dugg ba ci biir nguuru Abdoulaye Wade rocci waat leen ñu daal di wane ginnaaw dem topp Abdoulaye Wade bàyyi Macky Sall mais bi Macky Sall faloo dafa ubbaat ay buntam yaatal boole leen ci nguur gi mu nañ ci lim ñu bëree bëri kon tey bu ñu demee ba fii ku toll ni président El Hadji Mamadou Diawo am jaar-jaar bu mu am am carrière bu mu am am yoonam boo ko ci benn boo ko yaakaar ñu dem ba foo xam ne dañu faa toll maanaam li may faral di rappeler la déclaration du 3 juillet président Macky Sall ne moom jeexal na fii la yoonam yem président El Hadj Mamadou Diaw yàgg nekk un leader un leader jeune sociable généreux ouvert yàgg ubbi ay buntam ci ndawu APR surtout jël la responsabilité sur lui-même de dire damay dem à l'élection présidentielle damay dem à l'élection présidentielle parce que am naa gis-gis bu mu bëgg indi Sénégal damay dem à l'élection présidentielle parce que Sénégal bëri na fi loo xam ne tey ji mu ngi fiy sooxe ma gisoon ne ci nguuru Macky daana dajul suuf Macky ci ñaari at lépp li nga xamante ji amoon na ko ci yéene Sénégal amaana mënut a def lépp amaana mënut a mottali lépp président moom Mbaye Diao yàgg nekk ki nga xam ne dafa jege woon président de la république yàgg ànd ak moom dans les missions def le territoire national nekkoon le directeur de campagne en 2017 ànd ak le candidat Boun Abdallah Dionne te nationale def le tour du Sénégal ñëw en 2019 Macky Sall teg directoire de campagne à savoir la présidente Aminata Touré Souleymane Jules Diop bii di wax barki démb ak kii nag di wax ñuy wax le président El Hadj Mamadou Diawo pour dire que jaar-jaar boobu noonu daf ko may expérience jaar-jaar boobu noonu daf ko may mu wër Sénégal wër le territoire national te ku wër Sénégal wër territoire bi di nga xam fii sooxe fii yëf yi baaxee ak tey jii bu ñu jëlee réew mi lan lay war a jooyante Mamadou Diawo yàgg accompagner un président la République am expérience boo xam ne am na ko tey président la République dem ba tekki tekki nombal tànkam ne man dematuma président Mame Boye Diao jël responsabilité sur sa personne ne man dinaa dem ci Sénégalais yi présenté leen programme présenté leen vision présenté leen gis-gis tey jii Sénégal li fi sooxe dafa bëri mun na ne tey jii barki démb rek ñuy wax problème immigration clandestine pour dire que bu dee politique de jeunesse échec dafa am bu fekkoon tey jii am na réussite bu ñu dem ba en 2023 xale yi di jël bu ñu demee ba en 2023 jigéen ñi financement yi ñu doon jooy démb ak barki démb moom lañ ko ne di jooy président Mame Boye man de les femmes autonomisation des femmes am na lu ci Macky Sall def waaye man am na lu ma ci mën a indiwaat ba ci cadre boobu je pense la tegee programme bay wax ne que dans le futur su ma jotee réew mi naa teg li ñuy wax la banque nationale des femmes pour autonomiser les femmes pour dire que leader bi ñu àndal ñun ñu gëm ko nekk ay ndaw dafa nekk leader bu am vision am gis-gis ci kaw yéene boobu nag ay ndaw dañ ko ci jàppale ay jigéen dañ ko ciy jàppale ay mag ak ay xale te tey ji boo xoolee saal bi ñu la wër ñëpp ay ndaw ñoo fi nekk ñu koy sante yàlla siège bi ñu nekk tey bi ñu ko ubbee ba tey président Mambo Dia déclaré candidature am saa su nekk boo xëyee suba ba ngoon dañuy recevoir ay audience de 8 heures à 4 heures du matin ba ci parrainage yi ñu toll nii chaque jour ngeen gis ay dépôt de parrainage fii si biir siège bi parrainage yi kenn boo xoolee ACT WhatsApp am da gis muy partagé en direct le pour dire que li ñuy liggéey nekk na loo xam ne askan bi yëpp ñu ngi koy seede te li ñuy liggéey tamit ñu ngi koy tax askan bi ak opinion sénégalaise bi di ci teg seen bët di delluwaat di wax ne li ma waxoon sànq rek histoire politique moom boo ko xoolee trahison moom moom histoire politique ñoo ànd waaye loolu terewul ñun ñu ànd ak Mame Boye Diao dëggu fas yéene ànd ak moom ba keroog yóbbu ko à l'élection présidentielle fas yéene fexe ba def ko le cinquième la république ñu toll nii muy wàllum parrainage bi nga xam ne moo waral coow li dañuy rappeler la ki fi jëloon ay parrainage ñu yóbbu ko palais présidentiel di rappelé ne nit yàgg na fee ci parti liggéey ànd ak ñoom ba si yàgg daal roccee ko dem di jàppale keneen di ñëw ci kaaw ñi fi doon def point de presse tey dans la journée di wax ne dañoo bàyyi coalition Mamadou Diawo dem jàppale le candidat du parti au pouvoir ñun ba ñuy liggéey président Mambo Diawo dafa jël doomu Fatick muy Massène Papa Gueye jox ko ne ko yaay sama mandataire national na candidat bu nekk ak sa clé bi ngay remettre ak sa numéro candidature boo jëlee tey jii parti au pouvoir ka la ñuy représenté kandi boo demee xool da nga ciy gis le numéro 117 nga ñëw ci candidat El Hadji Mamadou Diawo boo xoolee clé bi ko xam ne tey jii moom léppam fii la war a nekk clé bi numéro baa ngi nii 157 la donc keneen ku dem bëgg jaay sa bopp wala bëgg wan nguur gi nag am na lu ma téyee ci président Mame Boye Diao dañuy wax askan na yàqal Mame Boye Diao lu toll ni bën mbiri puso parce am na carrière am na jaar-jaar ñun ñi mu àndal dañu nekk ay acteur politique te ba ñuy jug di ànd ak moom xamoon ne ñan la ñuy jàkkaar lool ba ñuy jug di ànd ak Mame Boye Diao dañoo xamoon bu baax ñan la Mame Boye Diao di jàkkaar lool régime bi fi nekk seen i pratique ñëpp xam nañ ko buñ la mënul jënd ci alal a koppar wala teraanga àdduna jaar tuumal la fii dañ fay am ay jurisprudence te tamit régime boobu may wax ni tey jii nii xooloon seen digganteeg Ousmane Sonko ci kaawu Adji Sarr xool seen digganteeg Djibril Ngom mi sàccoon parrainage dem déposé ko am na pratique yoo xam ne régime bi tey dafa waroon rompre ak moom et c'est malheureux ñu dem ba en 2023 Macky Sall nga xam ne moo ñu doon jiite dem ba dellu ginnaaw parce que xam na ne lu bëri askan bi nangootu luñ ko Benno Bokk Yaakaar li gën a probable jamono bi ñu toll tey jii nii bu ñu ñëwee ñu ne coalition Diao 2024 c'est une coalition qui a seulement 3 mois d'existence 3 ou 4 mois d'existence nga gis coalition boo xam ne dafa am 10 ans au pouvoir di trembler devant la coalition Diao 2024 parce que dëgg neexu na loolu moo am coalition Benno Bokk Yaakaar dafa nekk di trembler devant la coalition Diao 2024 mm-hmm. bu ñu demee ba ay nit yu bokk ci Mamboy ñu di dem di leen jéem a récupérer ñenn ñu leen jox ay teranga pour xëcc leen boole leen ci kon xanaa li nekk ci parti au pouvoir dafa bëreetul wala parti au moom la mu yor ci ay moyens ressources humaines daf koo doyatul bu ñu liggéeyoon nag jaar fi ñu war a jaar jox li ñu war a jox askan bi jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi je pense que duñ toll situation bi ñu toll nii di rappelé ne Mame Boye Diao ba muy nekk candidat woowu ci ma Samba woowu ci ma Demba ne la ma kaay jàppale ma waxatuma la nag ku bokk APR Mame Boye Diao ba muy déclaré candidature amul kenn si ñun koo xam ne dalaa woo téléphone ne la nga jàppale ma dafa demee loyauté ak ngorom engagement am man mii di wax ba mu ko njëkkee ne ko président da ngay dem candidat te boole woo ma ci man ma Omar man képp koo xam ne da nekk biir APR sama loyauté ak sama engagement mayu may dem naan damay rocc ay nitu APR sénégalais yi 18 millions leen te 18 millions yi lu ma 200 000 te bëri na sénégalais yoo xam ne tey nguuru APR ginnaaw pourquoi pas Mame Boye Diao dem xool ñooñu leen métti ànd ak ñoom construire benn projet sénégalais bu nouveau te je pense que yooyu la toll ki ñuy wax tey ji Adama Abis nekkoon suñu délégué régional bu mu jàpp ne dañ koy jiitaloon rek de dañ koy jiitaloon parce que peut-être mag la dañ koy jiitaloon parce que démb mu ngi woon APR amu fa valeur amu fa place yàgg faa dund ay jafe-jafe boo demee YouTube wax bu amul seede neexul dama nga tapé turu Adama Aziz Fall bu jógee tey mu ne man Diao 2024 damaa démissionné dañ naan ko nga loo miin ndaxte boo demee YouTube tapé Adama Aziz Fall balaa ngay yeggale ñu bind mot démission wala mot trahison donc kooku bu jógee tey mën daf ñoo bàyyi dafa mel ni dara xewul dara xewul parce que ñu bañ koy jiital Dakar magam agam du ci popularité du ci légitimité à base parce que kenn mos a gis Adama Aliou Sow dajalee ñeenti siège rassemblé fa ay nit. coalition bi ñu bokk moom jiital ko muy jëlee région jiitaloon ko parce que may rappelé depuis le octobre coalition bi jël na dogal notification baa ngi nii yónnee ko DGE mais Adama Aliou Sow ñun teggi nañ ko suñu délégué régional depuis le octobre ba tey. acte bu mu yëkkati teg ko da koo def ci turu boppam xëy na nag boo waree dem jaay sa bopp feneen boo waree dem seeti ji waa nguur gi nga xam ne tey jii téyetuñ dara parce que damay faral di wax benn bokk yaakaar c'est un géant aux pieds d'argile fragile actuellement ils sont en quête di bëgg ay nit di wër ay nit tey jii lii moo leen jaaxal ndaw ñu topp Mame Boye Diao li leen jaaxal mooy chaque jour ñuy toog di xool suñuy statut suñuy suñuy suñuy déclaration di gis nit ñi di affluer vers la candidature de Mame Boye Diao ay ay femmes Mame Boye Diao bu dul woon bu dul woon candidature bi am na benn njëriñ wala candidature bi am na ku mu tiital kon je pense bu ñëw suñu biir di jëm a rocc ma Samba wala ma Demba ñi fi nekk candidat bëri na kenn demul ci biir waa kër Déthié wala waa kër Massamba wala ma Demba dem di fa jéem a ay nit waaye nag c' normal qu'on s'attaque à Mame parce que comme ni ko daaw da waxee c' est la candidature qui dérange bi nga xam ne jeunesse kenn dara digul kenn dara parce que on est lu mu jaral waaye rek benn jaral nañu ko téeméer tey jii nii ñun Mame Boye Diao ñun jeunesse bi ndaw ñi ñoo ko portal suñu bopp te fi nga ko bëgg yóbbu incha allah da ko fay yóbbu loolu du Adama Adis Fall du ma Samba wala ma Demba am nañu dëkk Kolda ñu ne de Mame Boye Diao leen nommé woon secrétaire général yàlla def na ne note ba leen nommé secrétaire général sax mos a génn bañ koy publier peut-être jii pour ñu dem jaay seen bopp wane ki ñàkk ngor mooy nga démissionné cinq fois Bour News miy toog fii nii muy journaliste du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg ba Adama Addis di ko woo këram di jooy naan APR respecté wuñ ma nekk ci cinquième démission am xanaa bii bu mu démissionné Diao 2024 mooy sixième Adama Addis moom waxu démission moom boo tapee YouTube li may wax rek da gis Adama Addis gis démission gis trahison kon kooku waxam féete na boor keneen ki taxaw nga naan doomu Kolda nga Mame Boye Diao nekk doomu Kolda et c'est la première fois doomu Kolda nekk candidat à présidentielle donc je pense ku di Koldois war ngaa mën a xalaat ne suñu doom ji tey ji bu laajtee réew mi ñu joxoon ko mairie Kolda dañ ko war a jàppale mu dem jëli Sénégal bu dee nag loolu noonu nga dëkk doomu Kolda Mame Boye yëkkati la teg la fi nga war a teg ngay syndiqué nekk dans mouvement étudiant tekki woo dara politique amoo base amoo fenn Koldoa yaa ngi nii toog ñi ciy jàppale Mame Boye nekk ay góor ak jigéen nekk ay homme de base te ñu ngi leen jox daan bu keroog bu Mame Boye Diao xëyee ne day dem defi tournée Kolda boobaa neen xam ne kan mooy borom Kolda parce que loolu sax wax bu yàqu la ku dem élection locale Mame Boye Diao dóor la 4000 voix différence nga jël troisième yow boo jógee nga ne yow yaay récupéré Kolda pour jox ko parti au pouvoir je pense que di rappelé ne doomu Kolda bu toog jamono ji yow nga xool nga ne kii di Mamboy Diao nekk doomu Kolda nekk première personnalité politique de Kolda de Kolda bu war a dem élection présidentielle nga ne yow sax nga ko woon ginnaaw man mi nekk fu ñuul kii dëkk Dakar keneen ki dëkk Kër Massar dañ naan la yow boo demee ñun ñu toog ba tey Mamboy Diao heureusement nekkul président Kolda mais dafa dem dem pour nekk le président de la République jaaw ñii di ko indil ay parrainage ba ci parrainage yooyu noonu boo jëwoon tey ji nga ne da ngaa jël si ñun ay parrainage dem yóbbu ko parti au pouvoir damaa jàpp ne loolu moom gàcce mënu ko weesu te benn boo yóbbu ci ñun fukk mu ngi toog ba tey ba sànq tey ji boo jëloon lépp lu ñu yor liggéey ko ba fi ñu toll nii ci parrainage nga ne da nga sàcc yóbbu ko mun na laa topp ci yoon de waaye suñu nekkee ñu koy yeggal suñu liggéey xam ne li ñu des si ay fan bëri na te sénégalais ñoom ñoo jugal seen bopp fii Massamba joxuñ ko dara joxuñu ma Demba dara sénégalais yoo jugal seen bopp gis na Mame Boye Diao offre politique la gis na Mame Boye yàgg naa nekk biir Sénégal di liggéey loo xam ne war leen mën a am ci moom yaakaar tey jii nii le régime en place boo jógee nga la ngay xeex Mame Boye régime bi Mame Boye du seen adversaire Mame Boye le régime son adversaire c'est cette immigration clandestine son adversaire c'est ce problème là que les femmes ont à être financées ñu jël financement yi politiser ko bu élection jotee ñu dugg si localité yëpp laajte ay autorité naan jox ma liste jox ma quota alors que tey jii financement yooyu bu ñu ko yëggale woon ci askan bi parce que sénégalais yi on est 18 millions li ciy politique matul 1 million li tax ba tey ji askan bi wan leen ginnaaw benn boo ko yaakaar bu demee élection locale yeewu askan bi nekk de a mun a di négocier ak Pape Diop négocier ak moom jox ko député jox ko nangam nangam pour mun a teg ci sa bureau assemblée loolu gàcce la ci régime bu def 8 ans def 9 ans peut-être que nag boo nekk coalition bu am 10 ans d' dem di songante wala di jéem a coalition boo xam ne 3 mois kese la am d' existence mois d' existence nga nguur gi mooy li may faral di wax Benno Bokk Yaakaar c'est un géant au pied d'argile ils ont perdu parce que leur opposition ce n'est pas Mambo Diao leur opposition c'est l'immigration clandestine leur opposition c'est la cherté des prix leur opposition c'est les difficultés que les Sénégalais vivent au jour le jour seen combat nañ ko orienté vers foofu te bàyyi Mambo Diao mu doxal parce que Mambo Diao mënuñ ci moom lu tal ni bën bëri puso ay ndaw ay Sénégalais ñoo moom suñu bopp ñun ñoo tànn Mambo Diao ñun ñoo ne dañuy yóbbu Mambo kooku ñuy wax Adama Adis Fall ba mu demee rencontré Amadou Ba dafa ñëwaat ci suñu biir maanaam daanaka moom agent double la woon da doon xëy yendoo ñun bu guddee mu dem reer ak Amadou Ba moom moo nañu woon moom Adama Adis Fall ne ñu pouvoir bi ñu ngi leen di waajal benn plan pour liquider Mamboy mënuñoo liquider Mamboy si nenn nudul tey ji dugg ci biiram xool ay nit yoo xam ne tey ji am nañ position si wetam ñu jëm leen a rocci ñenn ñi bu ñu liggéeyee ba indi seen i parrainage ñu jéem a jël parrainage dem photocopier ko pour mun koo bloquer parce lu tax ñoom dañ koy wax ñu ne Mame Boye kenn mënu ko tere bu jàllee ci état bu parrainage bi sénégalais yi mën koo jiital léegi ñoom amuñ benn alternative bu dul tey jii nii xool biir Mame Boye la fa mën a liggéey ak leen ñen di dem fa mën a rocci loolu nag c'est une boo xam ne dañuy préparer à l'opinion ñoom waa benn bokk yaakaar ils veulent même bu Mamboy amoon c'est-à-dire 500000 parrains yu valable ñu bloqué ko ne dafa am ay doublon moo tax tey jii ñuy jël ay nit yoo xam ne ñoo nekkoon suñu biir yoroon suñuy parrainage ñu dem na dañ leen jéem a récupérer parce que ils veulent préparer préparer l'opinion di woo Sénégalais yëpp ne nag fii ku fi jóg ñu faagaagal la ku fi jug ñu jëm laa nasaxal ku fi jub ñu jëm laa delloo ginnaaw wala ñu jëm laa def naka sa dul noonu bu dee bu Mame Boye Diao nag moom na leen jàpp leen jàpp ne ñoom ils vont échouer ils vont échouer ils vont échouer lamentablement parce que Mame Boye Diao c'est une candidature portée par les jeunes par les femmes te incha allahu rabbi dañ koy yeggale fi ñu jëm mooy à l'élection présidentielle de 2024 leen remercier leen sant bu baax par rapport ak invitation bi merci beaucoup Thank